fii ci Guédiawaye fii ci Guédiawaye lan yëgal ni Ousmane Sonko bàyyi nañu ko fii la ñu ko yëgal ci Guédiawaye fii ci Guédiawaye lan yëgal ni président Ousmane Sonko moom ak Bassirou Diomaye Faye bàyyi nañu leen fii ci Guédiawaye la jotee ci daal. mais nee naa nu Ousmane Sonko est Le président Ousmane Sonko est libre. Direction Cité Keur Gorgui. Direction Cité Keur Gorgui. Diomaye est libre. Les détenus politiques sont libres. jigéen ñëpp gërëm nañ leen la bonne nouvelle le président Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye le futur président du Sénégal sont libres à cet instant direction Cité Keur direction la tanière du On ne bouge on ira ainsi que Keur à la tanière du Le président Ousmane Sonko est libre, Bassirou Diomaye Faye est libre. Ils sont libres, direction cité Keur Gorgui. Dans un instant, nous sommes au niveau de la caravane à Guédiawaye. C'est une excellente nouvelle, une très bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Le président Ousmane Sonko est libre. Cité Keur Gorgui Gorgui Direction Cité Keur la tanière du lion Dakar ne

bi mu jaaree Kër Masar dama ne la ma fa gisoon ci mbooloo kenn fayu ko ñu ñëw wàcc ba fii yëppal ñu ngi yëppal fii ngeen ko gis yaakaaruma ni daan ko gisaat keneen waaye lii ma gis ci géejawaay ah géejawaay ah géejawaay ah géejawaay yaa géejawaay géejawaay nag yaakaar naa ni moom moo jël ndam li mobilisation الله رب العالمين حسنة وقنا في تجاه جوائل est Le président Ousmane Sonko est libre. Direction Cité Keur Direction Cité Keur Gorgui. est libre. Les détenus politiques sont libres. noonu. soda la bonne nouvelle le président Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye le futur président du Sénégal sont libres à cet instant direction Cité Keur direction la tanière du lion on ne bouge pas on ira. en cité Keur Gorgui à la tanière du le président Ousmane Sonko est libre Bassirou Diomaye Faye est libre ils sont libres direction cité Keur Gorgui dans un au niveau de la caravane à Guédiawaye c'est une excellente nouvelle une très bonne nouvelle une très bonne nouvelle le président Ousmane Sonko est libre si Dakar góor gi góor gi góor gi góor gi si Dakar góor le président Ousmane Sonko est enfin libre. Bassirou Diomaye Faye est libre. Direction cité Keur Gorgui. Direction cité Keur Gorgui. Direction cité Keur Gorgui. man dama doon wax ne bi mu jaaree Kër Massar dama ne la ma fa gisoon ci mbooloo kenn fay ko ñu ñëw wàcc bare fii yëmbal mu ne yëmbal fii ngeen ko gis yaakaaruma ne daan ko gisaat keneen waaye lii ma gis ci géejawaay ah géejawaay ah géejawaay ah géejawaay yaa géejawaay géejawaay nag yaakaar naa ni moom moo jël ndam li mobilisation exceptionnelle ici à géejawaay donc géejawaay maa آتنا في الدنيا Géejawaay nga leen jël ci fii ndax de fii ci Géejawaay fii ci Géejawaay la mu yëgal ni Ousmane Sonko bàyyi nañu ko fii la direction Cité Keur Gorgui direction Cité Keur Gorgui Diomaye est libre les détenus politiques sont libres jigéen ñëpp gërëm nañ leen tey duma gërëm góor ñi jigéen ñi lay gërëm maram doona foo taxawee noonu